sa combat boobu noonu maanaam dama cee ci ay coono yoo xamante ne bii maanaam nit nga bëreeg nit ba mu daan la tey nga xam ne kii nii yaa ko mën. Eh. dalay metti ko kon moom xam na ko sax. Youssou mën daan la mënul. billaay sax maa la mën. ak ah, ki la daan mënul la. ki la daan sax moo la mën. ki la daan. comme bu leen parce que bu ñu doon wax moo la daan la ñuy wax. Mhm. kon moo la mën quoi. mais da nga jàpp ne mais si waxin si waxin. Mhm. bëgguma ñuy sori ci combat boobu. parce que sinon di nga si wax loo si warul wax quoi après nit ñi jépp la parce que Youssou Ndour tamit sama nawle la quoi. non attends Youssou sama nawle la. Mhm. waaw kay moom mbër la. daan na ñu ma raw fuuf daan na ñu ma mën. champion la dama ko koy nangul bu ma daanee sax war na ma mun a daan. moo ngi koy ñaanal. ndam ah, li ci ko waaye mënu ba léegi du si jóg de. Ah. mais bu loolu paasee laa la wax. kon revanche sa diggante Youssou Ndour. yàlla rek a xam. ah waxoon nga ma ko de da wax waxee. mais instant bi yàlla rek a xam man ñaan naa yàlla man instant li sama kanam laay xool de. Hmm. waaw man xooluma li sama ginnaaw parce que. Hmm. man moom amul combat. kan Youssou Ndour. waaw moo kii moo ko euh, bébé Julle. bébé Julle bokk na si adversaire yi ñu ma proposé bi ma daanee ma bañ ko. Youssou Ndour jël ko. waaw kon man. Ah, loolu yëpp nag xamal lan la dama ciy sant king quoi mooy li ma la wax sàng rek ma na la boo amee staff. boo amee wéeruwaay doo yomba a bëmax. yaa ngi dégg. Mhm. voilà ñu ngi ci làmb. Mhm. mu ngi ci làmb. Mhm. jaan ci kaw jaan ci suuf. non non jaan kaw jaan ci suuf rek. ju nekk na jaar yoonam. yaa suuf si ne nga Youssou Ndour euh, daan na la waaye mënu la nga waxaat ne proposé nañ la bébé Diouldé nga bañ ko Youssou Ndour jël ko. nga jëlaat école de Balla Gaye ba tey. nga ni yow daal victoire rek. jël xale boo xamante ni bërki démboo njaay bëri petit ñaa jël bi ba léegi ñëpp moom la ñu waxtaanee arène nationale. Mhm. mën na bëre am na technique xale bi macha allah gàkku de da dama laa yërëm. <laughs> ay reetaan nga ma def sax. Ah, nga naan ay gàkku de ay non gàkku de mbër la. gàkku de kay suñu génération moo ci dàq bëre. Mm-hmm. ñun sunu génération moom ma jur si làmb nag. Mm-hmm. mais suñu ñoo ñoo bokk même génération. Uh-huh. moo si dàq bëre. seen waaw ñun moo si dàq bëre. ndax la jël yu fi daan nit ñi. ñi fi mën ñëpp daan na leen. jaaxu de bul fàtte lool de. xaw ma sax ay defetam man. waaw kon yow xam nga ne kooku mbër la. kon du ma toog fii naan ay këram nangam sangam. làmb ji du làmb joo xam ne dangay ngay toog si micro yi di wax rek. non non. noonu ah ah am nga conseiller. Eh, làmb ji. de nga koy jigéen te gàkku de wax na lu ne. waaw ma lu ne seetaan naa mm-hmm. Mm-hmm. bu jigéen. mu ne segg bu jigéen xaw gaynde bu jigéen daal. gaynde segg daal. mooy lan. xam xëy na moom moo ko xam. Mm-hmm. moom moo ko xam. man de xaw ma luy loolu. defuma dara boobu mi ma fekk may entraîné man ak King ak Sibor. ñu ngi ci salle bi di fa lañ fa la ñu ko bira envoyé ñu koy seetaan foofu noonu. ci salle bi si moment bi ñuy entraîné lañ ko doon seetaan de. Mm. waaw. lu may def. gën a yëkkati rek gën a yokk après si la ma king sar <laughs> sarcel deux cent kilos yi ma koy ma koy pousse. kon ci làmb la nekk. xam nga làmb lépp stratégie la bataille psychologique la ku si nekk ak ni nga koy bëree. Mm. comprendre nga mais gàqu ku yaru la. Gàkku mosuma ko dégg ci ñàkk fayda. non yaa ngi dégg non da ngay déglu ma expliqué la Gàkku am na nu muy communiquer rek da ngay xam ne kii dafa nekk di jaay combat moom moom wala muy wala muy neexal combat xam nga li ma la wala ak fi làmb toll nii ñu bëgg a yëkkatiwaat làmb wala yu mel noonu. moo tax mais koo xam ne seeraan nga ko carrière am mosoo ko dé Gàkku moom laaj ko man bu ma ko fekkee esaat man maa koy fekk ma ko toog nuyu ko. parce que man dama ko doon supporté. tasante nañ XFM. waaw ma invité rek ñu ànd. waaw di ñibbi nga gis ko kaf ak moom reetaan ak moom. la demee nag dafa nekk mbër bu ma respecté man dama kaa respecté man budul Balla Gaye moom mën naa leen sax moom laa gën a kii si mbër yi Balla Gaye Ama Baldé ak moom moom boo bokk na si boo génnee mbëru Kër Massar yi. yaa ngi dégg voilà mais nag xam nga làmbu liggéey la liggéey la waa parce que ñit ñi maçon bi mi ngi xëy dem di maçon ji. keneen keneen ñun suñ xëyee dañuy làmb ji kon nag suñ ñu joxee mbër rek nañ ko jël mais duñ ay noon dañuy ut xaaj bu yóbbul suñu waajur yi ak bu ñu teralee suñu bopp loolu kese moom moo ñu boole mais duñ ay ennemis maanaam moom. du risque. ndax risque la risque. nga duggee comme Youssou Ndour daan la te Youssou la. Mhm. xam nga mën na koo joxaat clé bi mais est-ce que waaw garaawul na ko jox kele bi rek na ko ko joxaat rek mhm. waaw. sa combat tey euh, dañuy waxtaan gàkku waaw man daal su may kilifa mu ma ko jëlloo jël naa ko. ah loolu après nii ñu ñëw gisé nañ bàyyi ba làmb ji jeex rek. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que fii chaque jour nga gis fi ay combat yoo xamante ni bii da ngay jàpp ne du combat sax mais mbër ba dafa man man suma ma man benn victoire daf may daf may loolu lu bari yaa ngi dégg. Mm-hmm. loolu si ay mbër la. dafa am ay mbër yoo xamante ne bii làmb moo leen soxla am ay mbër yoo xamante ne bii ñoom ñoo soxla làmb comprendre nga yee man victoire bu mu mën a doon su ma ko amee man damay damay yéeg ci kaw waaw te suma prochain adversaire sax mën na nekkaat écurie boobu yàlla rek a xam waaye nekkul dama fee ñëw naan écurie Balla Gaye laay bëreel wala yu mel noonu. kon ñu naan da nga jël non non kii ménageur bi moom koy proposé rek. waaw du ma si sax waxtaan ak moom nekkul man ma koy wax jox ma diw de non non daf may wax kan ma ne ko xoolal rek soo soo tëñëx tëñëxee ba dal ci kenn waaw bu baaxee rek ñu jël. te yéen ñaar ñëpp yéen a mën naa am de. mën naa am man de. dëgg yàlla Matar day liggéey rek Matar day liggéey rek. moom mbër bu nekk mën na la yor day liggéey rek. waaye ñun ñu ngi suñu ruq di liggéey daal. Mhm. waaw ñu ngi suñu ruq bu ñu ngi liggéey de. Mhm. ñu ngi liggéey ñu ngi waaj. ak ci koor ak tam xarita si yam ñun dañuy ñu ngi entraînement daal xaw ma ñaat séance la ñuy def nag instant bi man man dañ may woo rek man xamal lan la man damay tëdd dina la ñu woo ma ne ma ñëwal. mën nañ ma woo deux heures mën nañ ma woo midi mën nañ ma woo cinq heures du matin mën nañ ma woo deux heures du matin mais heure bu ñu ma woo rek pare naa. waaw am nañ combat bu baax. moo tax ñu si woo cent pour cent Kër Massar bi. nga xam ne gaa yi nga taxawal. xam nga ñoom seex Bas Bira Pape Demba ñoom Baye Ndiaga xam nga ñoom Diaz ñoom Omar te Temax ay ñoom Wuteng ñu si woo ñëpp Kër Massar Ron ñi mbëri nga xamante ne bi dañoo bëre ba bàyyi bëre ñu ngi leen si woo ñoom ñëpp surtout ñoom Wuteng nga xam ne ñoom ak King la woon ak Baara maa leen siy woo di si woo xaritu képp kuy xaritu King rek maa la siy woo si bés bi nga ñëw dooleel ko si parce que sonn na si quoi te demagul fenn comprendre nga ñu ngi ko si woo ñu ñëw jàppale ko si bu baax a baax a baax te xam ne suñ ko si jàppalee man defaluñ ma ko moom lañ ko defal ak Kër Massar parce que Kër Massar ñoom ñoo ne ma sëy dañoo bëgg nga dimbale ñu ko waa ñun Kër Massar dañaa soxla champion te man ku xam-xam ne lépp luy tax ni champion nekk sampion maa si man maa ngi si bu baax a baax man du ma jàdd terrain bi man damay tegu si raay bi nii rek voilà. gëm maa ngi si lépp. bu baax. Mm. te sax dama koy gën a gëm. waaw làmb xa sa làmb yi eh, dañ laa tënd musulma sa làmb yi nga daan yëpp. mosuma bëri ñu sentir ñu jàpp ma si gàllaaj. ok waaw Balla sama xarit la. waaw sama xarit la Serigne Touba moo ñu boole. dañuy déggante man ak moom dañuy déggante chaque jour. mais mosuñu waxtaan sax si làmb. comme si làmb nii mosuñu si waxtaan. si Serigne Touba rek la ñuy waxtaan. ci Serigne tuubaa rek. bu la gisee nga dugal benn vidéo boo xamante ni bii mbirum Serigne Touba la mu ne la mu ne la jàmbaar envoyé ma bii boog comprendre nga li ñuy waxtaan sax bëriwul lool lool mais mënoo fexe ba boo dugalee vidéo diine ak lislaam loo xam ne diine la rek moom amul murit baag tiijaan baag xaadir baag laayaan ba na nekk wax joo xamante ne bii ki kay wax ku nit ñi di déglu la ba pare li muy wax wax ju nit ñi mën a jariñoo la dalay wax jox ma vidéo bi fët nga gis mu dugal ko statut dañ koy ñaanal rek moom borom baax la moo mbër yi nekk ci àdduna bi yëpp parce que peut-être moom rek laa yor numéro mais yeneen mbër yi tamit ñi yor seen numéro ñu ngi leen di seedeel loolu mais man mbëri mag yi moom kese laa si yor numéro comprendre nga moo tax man mën nga ko seedeel. fu ñu wax nga hmm. bëgg gum bëgg waa këram rek. parce que man amut man daa am leneen lu ma mën a jaay ba ma ba ma saf ba mu saf ma. mënul amul parce que man gentleman laa góor yàlla laa. yee mm-hmm. man Kër Masaar laa dëkk. Mm-hmm. mais dafa bëgg Serigne Touba ba ma xam ne daka bëgg. te damay dégg nit ñi di ko waxal loo xamante ni bii barki maam Seera Fall nekkul si moom kooku sëriñ bi rek lay sëriñ bi kesee ko ñor leneen ñoru ko. Mm-hmm. leneen ñoru ko di ko di ko di ko di ko di ko wax tamit comme ku mel ne Aziz Ndiaye naka jàpp gis ngay mbër yéen gis nga nit bu la gisee ngay ànd ak nit koo xam ne mën na mun xalaat na ne kii mën na la jëmale si kanam say noonu dañuy fexe nu ñu yàqee seen diggante. lu ne ko dégg man gis nga king mii nii lu ma si mun a lu ma man sax man man man nit daf maa yebewut yeb gu toll ni sax ngay ñëw jàkkaaloo man di ma wax sama digganteeg ki may àndal yooyu noonu man loolu mayu ma ko nit parce que nit bukki bu yabee gaynde rek si dox doxin bala mhm. man dafa am nu may nu may nekkee askan wi nit ñi. Mhm. ba dafa am fu may yem ak ñoom. Mhm. voilà sama waa ko ñëpp a xam léegi. ñëpp parce que maam Seex dañ may gis ma jóge entraînement di las nii di dox nii sax ñu naan ñu may fay mbalagee naa ma ay king king dañ ñu ngi koy gërëm moom ma ne bu ma yoroon numéro ba si jigéen ñi di wax. xam li ma la kon defar na la daal bu baax man dama ne la sama jikko bu mu man dama ne la man waxuma la ay entraînement ak yooyu de. mais sa jikko waaw kay parce que nit kuñ mënul defar amul kuñ mënul changer amul. maa gën a léej. Mm. gën a mën a turbale parce que du ragal aw ma lu may ragal sama àdduna. lu nekk jaar naa si loo xalaat ci àdduna nit di si jaar rek jaar naa si yaa ngi dégg mm. mais taalibe Serigne Touba laa mbër laa mm. sama yaay man la yaakaar de man maay taawam. amaguma dërëm yaa ngi dégg du ma xool damay xool ñi nga xamante ne bii buñ ma bu ma ànd ak ñoom jëm ci kanam te chaque jour sama mère du ma dégg si lu ñaaw ma ànd ak ñooñu. Mm. parce que su loolu la may conseil loolu la may ñaanal. Mm. ñaan nag day fekk nga bëgg ko waa. arbitre ak CNG dégg nga problème bi arbitre yi ñoom ñu ne assurance la ñuy laaj ñu gis waa CNG ak ñoom neexutuñu bien vrai que da ñoo far mais loolu nan ko gisee ñoom ñaar arbitre ak CNG. ñoom li ñuy c'est arbitre yi moom ay nit lañ rek CNG tamit ñoom ñoo yor làmb ji comprendre nga ku si nekk yaa ngi def li nga war a def mais nit ku dul juum amul yenn saa yi diggante CNG ak mbër mi mbër mi day juum yenn saa yi CNG juum diggante CNG ak arbitre yi tamit yenn saa yi arbitre yi dañuy juum CNG juum diggante arbitre yi ak mbër yi tamit noonu. xam la mu la wax mais lépp rek dañuy rafetal soo mi duggee ko marché rek man awmal benn baat bu ñaaw bu ma siy wax jëmale ko si kee wax ci kee lu rafet mm-hmm. lu xew rek yàlla si jaamu topp rek ak lu mun a xew mm-hmm. yàlla si jaamu topp avancement làmb topp si su ñun làmb lañ am mm-hmm. ñun leen rek moo ñuy déranger mooy ñuy toog naan làmb yàqu na làmb yàqu na loolu rek moo ñuy déranger làmb musul yàqu boo ci fayee koo ba pare nag taxaw bëgg a yàq làmb yow la mais ñun dañaa nekk si làmb xëyuñu gónduñu yenn saa dañuy xëy suba sax duñ am lu ñu ndékkee te dañ te dañuy dem entraînement ndax làmb rek lañ am amuñu lu dul làmb yaa ngi dégg kon nag suñu làmb ji nañ ñu ko defaral ku bëggatul nga ba nga dem nga bàyyi ñu bëgg ñu gérer parce que àdduna lépp rek teraanga la te ku si nekk sa teraanga fi nga ko gisee rek foofu ngay dem xam li ma la si lu baax. noonu la demee nag mais arbitre yi ñu ngi leen di ñaanal jàmm di leen ñaanal ñu ñëwaat parce ñun moom lañ ñoom lañ xam ñun suñ digganteeg ñoom sax day am réero yenn saa yi da ngay jàkkaarloog arbitre si biir géew waaye di ko tegal bu tar nice hmm. job la rek après bu jeexee rek jeex na amaguma soxna amaguma amaguma soxna amaguma gel amaguma dara amaguma dara non non maa ngi sama ruxu di non non maa ngi sama ruxu di liggéey moom man dama bëgg a nekk roi des arènes bëggantewuma kenn bëggantewuma kenn kurul làmb làmb rek man su làmb rek man su nekk roi des arènes man maa bëgg a nekk roi des arènes man nekkuma si man làmb man nekkuma si man làmb damaa fonk man farma damaa fonk li ma dëggal sax xam nañ si li ma dëggal sax làmb rek laa billaahi làmb rek laa fonk man xoolal man xoolal xale bu ndaw nii sax xale bu ndaw nii sax mooy am combat di dox nii sax xam xale mu wax fu ko wax fekk rek mu wax romb ni xaalis mu naan la yàlla yu mel di fon yi dama lay kalaate yu métti jàll dem sama yoon ndax dama fu ma làmb tolloo loolu dama koy xalaat après loolu dama damay dem gagné te damay dem gagné boo bëggee làmb boo bëggee lépp luy ñàkk man lépp luy ñàkk la lu nit ci làmb du ko def ki Seydina Mohamed ki Seydina Mohamed may entraîné vingt quatre heures damay entraîné vingt quatre heures damay entraîné bu baax di récupérer di récupérer di toog ak sam waa koñ. waa xusnaa bi yëpp waa xusnaa bi yëpp. di toog ak ñoom sama booy. di toog ak ñoom sam booy tànk yi dëkk xusnaa. ñëpp man ak ñoom ñooy. ñëpp man ak ñoom ñooy delloo bi tamit. waa firi delloo bi tamit mafia firi delloo bi gaale caat ñooy toog di waxtaane làmb. di waxtaane làmb ba tëdd jot ñu dem tëdd. ba tëdd jot ñu dem tëdd. l'émission tire à sa fin waaw Wassare Lamb kontaan nañu bu baax baax waaw di santaan ñëpp waaw di santaat ñëpp rek ñu ngi santaat ñëpp rek di ñaan di ñaan di ñaan gëngal këpp àdduna gëngal këpp musiba bi musiba musiba balaa bi fi wàcc coronavirus bi ñu coronavirus ñaan suñu borom jëlee ñu ñaan suñu borom jëlee ko si nekk delluwaat say si nekk delluwaat say activité Sénégal Sénégal jël pied parce que àdduna bépp lañ koy ñaanal àdduna bépp lañ koy ñaanal ay sénégalais lañ ñun ay sénégalais lañ xam nga di wax nañ nañ nañ wax nañ ñu gën a fonkaat suñu ñu gën a fonkaat suñu diine nag sa réew mi boo xoolee dañoo sa réew mi jël leneen te diine mooy lépp lu diine mënul defar nañu respecté diine nañu respecté diine ji ak diine respecté nañu ko respecté julli yeeg wooree ak wàcce kaamele parce que ñun ñun nag boo ñu même boo ñu ñëwoon di ñu di ñoo gëm loo lu dul diine waaw ndax taalibe Serigne Touba ndax taalibe Serigne Touba gis nga boo ko dugaloon ci teenu ndox bu gis lu Serigne Touba du gis lu Serigne Touba loo ko mën a laaj Serigne Touba boo dugaloon xal ba dugaloon ci ay xal ba génnee ko tamit Serigne Touba taalibe Cheikh bi taalibe Cheikh bi keneen keneen noonu keneen ak keneen noonu kon nag ñun ñooñu noonu nañ xam ne ñoom ñi fi nekkoon ñoo bokkoon li ñu doon job yëkkati lislaam yëkkati lislaam kon ñun tamit nañ lislaam yaa ngi dégg yaa ngi koy yëkkatee mooy ku si nekk koy yëkkatee mooy ku si nekk mën a doon rek ak ku mën doon rek di wax Macky Sall na wax Macky Sall na ubbi jàkka yeeg jumaa yi gaay jàkka yeeg jumaa yi gaay yi dem fa wàcc def fa li ñu ko war a def def fa a def sa boo seetee suñ am distance xéewal ñu toog jàng xéewal ñu toog jàng ay alxuraan loolu yëpp si defar la boobu loolu yëpp si defar la boobu wasalaam waaw wasalaam l'émission tire à sa fin ñu koy bëgg waat bu baax a baax muy Boy Seye 2 mu nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla suñun la bokk war moom suma xarit la suma lépp la loolu ñëpp xam nañ ko mais nag toujours da koy teg ci yoon kon ni mu koy waxee rek ñu koy remercier bu baax a baax di ko ñaanal jàmm roi des arènes bi mu wax yal na ko yàlla def ci barke Seydina Mohamed parce que mën naa bi ah nekk na koo xam te ne kuy déglu conseil la kuy déglu doomu aadama la mooy Boy Seyde mën naa conseiller ci moom di ko nuyuwaat nag bu baax a baax mooy suñu frère mu nekk na koo xam te ni mbër la dañ duñ ne sax mbër la woon bari parce que ngi ci mbëri ndax neen taksaan bu nekk def na ko ndax ba wax dëgg yàlla boo seetaan ci archive yi bantambaa yi dangay am kilifa parce jamono ji foofu lañ toll kilifa boo ko amee rek di mën a mucc ci yu bare bari bari mais nag du ma ko fàtte moom it mu nekk koo xamante ni suñu chéri bu baax bi nga xamante ni muy Ndeye Boury waa Chéri King wax dëgg yàlla kontaan nañ ci moom bu baax a baax ndax nee naa leen jigéen bu xajamee rek mën a reetaan rek kooku jigéen bu baax la moom di ko ñaanal yàlla moom borom këram yàlla dafa leen jàmm may leen jabar gu barkeel ci barke Seydina Muhammad mu bañ am nag wujju loolu moom mu bañ koo am mag mag maa gërëm nag dama kaa fàtte woon nag dem bës nga xam si bës xaarib jong la tudd xaarib nga xam gërëm bu baax baax a baax a baax jël na ma teg ma si ay jël na ma teg ma si ay conditions yu baax mu yor ma yor ma si la mën a def champion bu baax parce que yow da nekk suñu biir xol ndax nee man su gisee jigéen boo xamante day reetaan rek waa xam nga rek mu nekk lu naa ba pare kii rek mu tudd yaatu rek damay kontaan ci moom yow di kontaan yi wax bu baax a baax a baax lay fatigable Bassirou Diouf sama séeréer bu rafet bi maa ngi lay remercier bu baax a baax ndax sama ne la acca rek nga ne acca euh, internet yi li lañ leen indiloon booy seen numéro doomu kër Massar dégg ngeen li mu wax ci li nga xam te ne moom mooy diineem ndax nee naa mbër ak diine day continuer yéen nag yéenay voté yéen nag yéenay xool ku leen neex ñu jëli ko booy sëy ngeen ma tànnal moo tax ma ñëw ba kër Massar waxtaan ak moom après nag damay jubalaat rek xoolaat ban bër laa sant ñu waxtaan ci loolu Bassirou ñu seeti keneen jaajëf jaajëf